asalaamaaleykum mbokki safa di bàyyi xel leeral TV juróom-ñetti waxtu ci guddi jot nañu dikk ak yéen ci xibaar yi. li ci gën a fës bokk na ci lakk l'accident bu mettee métti def juróom benn doomi aadama yu fa ñàkk seen bakkan mbir moomee mu ngi xewee ca diwaanu Bambilor leeral yi ci kanam tuuti lay doon li xew diggante Israël ak Palestine doon li nga xamante ne bii métti na bu baax a baax ay askan dëkkee fii ci diwaanu senegal doon amal ab ndaje tey ca fa nga xamante ni bi rek mooy esplanade bu institut islamique ngir wane seenub njàppandal ci peuple bu euh, Palestine leerali itam dinañ ko teewlu ci jotaayu euh, xibaar yi ñoo xamante ni bi rek ay fajkat lañu ñoom ñoo am lu leen metti yàgg na lool ñuy sàkku nguur gi mu daal di sàmm ak la mu leen digoon muy ay indemnité wante itam yokk seen i payoor tax na ñoom ñi nga xamante ne bi ay agent contractuel lañu nekk fii ci diwaanu Sénégal bàyyeekoo ci 14 régions yi nekk ci réew mi daja tey jii ca CNTS FC fii ci Ndakaaru di sàkk ci nguur gi rawatina premier ministre ak itam ki nga xamante ni bi rek moo di njiitalug euh, réew mi di ab maître euh, wala sax ki nga xamante mooy euh, Macky Sall mu jàppale leen ci seen i ndàmpaay yu ni mel xibaar yi itam daañu ci toftal gannaaw. ay fan yu néew yu des ngir ñu daal di yegg ci li nga xamante ni bi rek moo soxal vote jëm ci wàllu budget finance atum 2024 loolee nag ay taskatu xabaar war cee fekkee tax na ñu daal di amal ab lël jagleel ko ay taskatu xabaar diggante convergence des jeunes reporters bu Sénégal ak itam jàkkaarloo ak forum civil ñoo ko yombalal askan woowule dinañ teewlu leeral yi ci biir léegi taayu xibaar mbokk yi li ponk bu ñu ko faram-fàccee ba noppi xibaar yi fale jaaree buur lu metti moo xew ni ki sànq ci diwaanu Bambilor nekk ci département bu Tëngéej juróom-benn doomi Adama ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bu metti bi nga xamante ni bi rek daanaka mu ngi fa am sànq la woon ci diggante benn oto boo xamante ni bi rek daa si yàlla moo daal di mbëkkanteeg morom ma benn camion kon ca diwaan boobu la jege yoo lool ak Bambilor foofee nga xamante ne bi euh, daanaka lu soxal nag euh, diggante nof lay jàpp euh, Bambilor kon nag sapeur pompier ñu ngi fa woon jamono joojule dinañ ci dëkk ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen ni jotaayu xibaaram addu ci leneen loo xamante ni bi rek ñeel na liy xew diggante Israël ak Palestine loolu nag nekk lu xamante ni bi rek indi na jafe-jafe ci diggante ñaari réew yooyu le tax na ba ab askan nekk fii ci diwaanu Sénégal amaloon ab ndaje ni ki sànq ni ca esplanade bu institut islamique fii ci diwaanu Ndakaaru ngir wone seenub njàppandal ci peuple bu Palestine ñu teewlu ci ki nga xamante ne bi rek moo di wala sax xibaar boobu la itam daan ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen i jotaayu xibaar dañu àddu leneen mbokk yi wax ci li nga xamante ni bi rek moo soxal ay nit fajkat la ñu nekk ci diwaanu Sénégal ñoom nag bàyyi ko ci fukk ak ñeenti région yi daje tey jii ca CNTS FC ci diwaanu Ndakaaru ngir wane seen naqar ndaxte nee nañu war nañu leen joxe ndàmpaay muy indam indemnité wante itam loo xamante ni bi rek dafa ñeel seen payoor ñu daal di koy yokku ñu koy sàkku ci nguurug Sénégal rawatina Macky Sall njiitum réew mi premier ministre Amadou Ba ak itam ministre bi ñu dénk wàllu paj mi ngir ñu jàppale leen ci seen yooyu lee bëgg-bëgg ndax faj dafa bokk ci li nga xamante ni bi rek day doxalub réew ñu teewlu bi le reportage. manifestant ñu ngay fësal la ñuy naqarlu ci ay banderole ak i pancarte seen bataaxal la ñu tënk ci bés bii la ñu sàkku nag benn la. lu ñuy revendiquer mooy euh, indemnité de logement yu le président de la république Macky Sall euh, jox. pour tous les travailleurs euh, contractuels et encore les travailleurs des EPS wala les travailleurs de de de du de la santé Euh, le président Macky saal dafa imposer ñu joxe une enveloppe de huit milliards pour que ñu séddoo ko. personnel contractuel des établissements publics de santé bi coono gi ñu nekkee ci biir établissement public de santé yi bi ñuy dund ci biir euh, établissement public de santé yi ak discrimination bi nga xam ne moom la ñuy dund ci biir établissement public de santé yi ñun contractuel yi loolu moo ñu taxam moo ñu boole fii tey parce que dañoo gis ne ci biir hôpitaux yi booy seet ñun ñoo fa ëpp. discrimination boo xam ne notoire la. discrimination la parce que loolu warul am lu ñu def nii warul am. yile agent contractuel des établissements publics de santé nekk fii ci Sénégal bokk benn kàddu di sàkku ci gouvernement bi. ñu ngi interpellé premier ministre monsieur Amadou Ba ndax soo bëggee réew mi euh, am am dal santé warul nekk ginnaaw ndax ku amul santé doo tam élection doo tañ ndaje ndax ñun ñoo fi nekk nag Covid jaar na fi donc gars xeex nañu ba sonn donc moom la ñu interpellé mu jël ndax ministère de la santé 2022 ba léegi dossier baa ngi fay traîner. donte am na nañu yaakaar ne seen bile xeex gouvernement bu Sénégal dina ñëw wattu leen ci ñoom fajkat yi dàquñu ba taxawal ab plan d'action fii lekk amaguñu la ñu bëgg. vote jëm ci wàllu budget finance wàllu koppar la kon ni ngeen ko xamee rek loolee jot na wala sax baax na lool ngeen jot ci xibaar yu wér te wóor tax nañu fas yéene ci. tàggat ay taskatu xabaar yi nga xamante ne bi rek daañu ko fekkee muy vote de budget finance loi finance 2024 boobu lay ndaje nag gis nañu ne ab forum civil boo xamante ne bi rek daf ci lëkkaloo convergence des jeunes reporters bu Sénégal ngir tàggat ci ay taskatu xabaar ngir ñu gën a mën a am xam-xam naka la ñuy joxee xibaar jëm ci wàllu wu ni mel ñu teewlu ci ki nga xamante ni bi rek mooy euh, secrétaire général bu convergence des jeunes reporters bu Sénégal Mor Amar ci micro Ndeye Fatou Diop ak Ñañaka des jeunes reporters biñ ko sosoo ba léegi euh, dafa décider pour yëngu si wàllu formation des journalistes parce que dañu wax que ne journaliste bi pour mu informer bu baax public bi il faut que moom ci boppam ñu former ko moom ci boppam mu informer wu loolu mooy waral ñu organiser de temps en temps ay formation yu mel nii et comme vous le savez fi mu toll nii comme ni ngeen ko xamee fi mu toll nii assemblée nationale mi ngi daje depuis euh, quelques jours euh, di adopté li ñuy wax di waxtaan ci li ñuy wax mooy loi des finances pour l'année 2024 Euh, ñu ne euh, moment bi si la ñu war a organiser session bu mel nii comme ça journalistes yi nga xamante ni ñooy dem assemblée nationale pour couvrir euh, ndaje yooyu dina ñu am suffisamment d'outils pour vraiment ñu wax si li nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy waxtaane si assemblée nationale comme ça bu ñu fa jógee au-delà de jël jox kàddu. Euh, député bi rek wala ministre bi pour mu wax ci loi des finances moom ci boppam mu mën a retourné wu ci public bi euh, faram bu baax li nga xamante ni moom la fa jëlee comme ça askan bi nga xamante ni moo ñu tax euh, nekk fi ñu nekk Euh, ñu am la bon information mën a comprendre li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee euh, si pencum ndaw réew mi euh, parce que comme ni ma ko waxee sànq journaliste bi bu ñu koy formé formé nañ ko pour mu nekk journaliste bu xarañ mais formé wuñ ko pour mu nekk par exemple spécialiste si question santé si question éducation si question loi de finance bi nga xamante ni moo ñu dajale tey donc loolu benn la ñaareel bi mooy dina tax experts yi nga xamante ni ñoom la seen xel màcc si mbir yi d'habitude jot si ñoom day jafe lool mais genre rencontre yi day waral euh, journaliste bi am accès si ñoom et loolu mooy. mu ngook dañuy desandi ba tey ci boobu boobule ndaje ndaxte ki nga xamante ni bi rek moo de coordonnateur général bu forum civil Birahim sekk jot na àddu ci lël googule nga xamante ni bi rek dañu ko jagleel ay taskatu xabaar ngir ñu gën a mën am xam-xam ci njoxum xibaar jëm ci loi de finance projet 2024 bi lee Birahim Seck ñu teewle kàddoom ci micro Ndeye Fatou Diop ak ñaañaka forum civil ko di leen ko baax ñu fi dajale tey mooy euh, tàggat tàggat journalistes yi nga xam ne dañoo bokk ci convention des jeunes reporters du Sénégal euh, journalistes yi nga xam ne daanaka am na ay formation yu bari yoo xam ne participer nañ ko ci ci ci ci ci forum civil di ko di leen ko baaxee ñu participer ci jëm ci wàll justice fiscale jëm ci blanchiment de capitaux jëm ci wàll secteur extractif jëm ci wàllu mobilisation des ressources ñoom ñu daje leen fi tey boole ci également journalistes yi nga xam ne dañoo tàmm dem di liggéey au niveau de l'Assemblée li ko waral mooy dañoo nekk période boo xam ne période vote budget la te bu ne vote budget mooy voté li ñu wax loi de finance de l' mu nekk euh, benn domaine boo xam ne dafa technique te journaliste bi avant mu ci wax daf ci war a wax loo xam ne lu mu xam la lu mu maîtriser la te comme ñoom ñoo suñuy canaux ci lañ ñoom nañuy jaaree pour jàll jàllale suñu information pour mu jëm ci euh, euh, citoyens yi ñu neñu forum si bi suñu wàll suñu suñu wargar mooy ñëw andi ay expert yu ñu tàggat leen ci luy loi finance ñu def distinction la mooy loi de finance ak lan mooy loi de finance de l'année ak lan mooy lan mooy budget donc ñun suñu suñu suñu wargal mooy fexe ba nga xam ne fu ñu nee ah moor Amar moor amal mi kat def na erreur ñu ne ko Mor kaay fa erreur fan la jëm ko joyanti journaliste bi def na erreur fan mooy erreur bi jëm ko joyanti pas uniquement di critiquer mais ñëw apporter leen également sunu sunu li nga xam ne mooy sunu sunu expertise ci domaine bi même bu xaalis des fois ñu wooñu laaj ñu nangam nangam ñu wax leen nangam nangam nangam même bu ci feeñul li nañ ci xam techniquement objectivement même bu ñu ci feeñul donc suñu rôle moom mooy loolu accompagne jeunesse ba nga xam ne. ñi nga xamante ne bii ñoo bokkoon ci euh, kuréel gu ñu duppee union pour le renouveau démocratique. ñoom nag fësal nañu ab euh, groupement muy mouvement bu yees boo xamante ne bi ñu ngi ko duppee liggéey jubal leeral boobu lay kuréel nag li ko tax a jóg moom mooy liggéey jubal leeral comme ni ñu ko waxee wante itam fexe ba li nga xamante ni bi rek moo ñeel ni réew mi doxee mu ñu daal di ci mën a dugal seen loxo ki nga xamante ni bi rek moo jiitee lu ni mel daal dinay prox ndoll ci boobu lay ndaje di wax ni fii lekk weeru décembre daa ñu fësal seen candidat que ñu fa yéene àndal ngir mu doon président ci atub 2024 ñu teewlu ci Aïda Gueye njiitalu ko boobu le mouvement ci micro Ramata Sarr ak Khadija Thioub te bi yaakaar naa ne wuyu na turam ndax boo nee jubal ndax réew mi laaj na ko ak lu fi jot a xew lépp lu ñu jubal mais nit ki nag mënul jubal te leeralul ndax citoyens yi dañu soxla lu leer kon boo jubalee war ngaa mun a leeral la ca kanam ndax jubal ak leeral day indi jàmm ci réew ndax jàmm paix social d'abord pour mun a am développement aussi ni mu leen ko waxee suñu parrain à vie muy jubalay ci kaa yaakaar naa ne jàkkaaru naa ak réew mi yépp nee leen man samay loxo ngi nii dafa set wicc musuma jël dërëmu réew mi te yaakaar nañ ne loolu waa Sénégal yépp seddal nañ ko ko mouvement bi loolu moo ko tax a jóg indiwaat ay valeur yar nit ñi teg leen ci dëgg tenir ak ñoom benn langage de vérité yaakaar naa mooy les points essentiels du mouvement. mu nga comme ni ngeen ko gisee kon kookoy moo moo nekk ma euh, Mamadou Guèye moo àddu ci kàllaamay euh, wolof wante Aïda Guèye du jàlloo ñu baal ma moo wax ci kàllaamay wolof Aïda Guèye di njiit la dina ngeen ko teewlu ci kàllaamay nasaraan ci bu 21h jotee. mbokk dañu àddu leneen ci euh, xibaar yi ak euh, loo xamante ni bi rek ñeel na euh, coppite gi am ci Sénat nga xamante ni bi rek ku ne xam na ni njiitum réew mi Macky sàll tabb na ñu yees ñoo xamante ni ñoo jiite boobu boobulee kuréel wante loolee neexul ki nga xamante ni bi rek moo di Ndiaga Sylla xelam màcc lool ci wàllum election muy expert électoral moom nag nee na dina jébbal ñooñu le ci kanamu yoon ndax li ko waral moom mooy en tant que électeur bi mu doon nekk na mbir moo xamante ne bi àndu ci te itam am na ñoo xamante ne bi tabb nañu leen ci euh, boobu boobule euh, kuréel te seen mandat jeex na ndaxte depuis atum 2018 lañ leen tabb ba tey kenn soppiwu leen ci kuréel gu la mbokki dañu àddu leneen ci xibaar yi ak kuréel gi nga xamante ni bi rek mu ëmb ay juriste di ay jigéen muy AGS association des juristes sénégalaises tey ji doon sargal ki nga xamante ni bi rek moo di euh, kii di bind ab livre ñu duppee ko Dior Fall Sow moom nag daanaka daal euh, moo fi nekkoon président bu juriste sénégalaise yi wala sax moo nekk koo xamante ni bi rek moo bind livre bu ñuy wax moo livre blanc sama téere bu weex bi moom moo nekkoon nag euh, procureur la woon fii ci diwaanu Sénégal ñoom sargal nañu Dias boo xamante ne bi daf koo jagleel boobu la téeréem njëtaluk AGS di euh, Aminata Fall Niang ay kàddoom ci mbir moomu la dénk na ko Ibrahima Khalil Diémé boo décidé tey organiser bi euh, jagleel ko suñu mag suñu yaay suñu tante euh, madame Dior Fall Sow ñëpp sax tata lañ koy wooyee mu di ko mag mu mën góor jigéen bu mën góor comme ni ñu ko waxee mag mu mës bàyyi ci réew mag mu baax mag mu yiw mag moo xam ne daf ñoo teg ci yoon bokk ci ñi nga xam ne ñoo sos AJS bi mu sosee AJS mooy deuxième présidente bi après madame maam Madior Boye ñi nga xam ne moom moo bokk ci maam fondatrice yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo créé association bi ah euh, Tata nag di nit ku baax di nit ku yéwén di nit ku ku bëgg liggéey nit ku ku fonk liggéey nit ku am ay valeur di nit ku jororoy euh, daal ci ci gàttal euh, nekk ci suñu association nag di ñu teete nit ñi nga xam ne ñoo gën a féetee ndaw ñu seeti di ñu won yoon ci lépp loo xam ne xeex mbirum àq ak yelleef xaleel boobu ba léegi moom bay na ci waaram ah bay na li mu mën yëpp wax dëgg yàlla def na ko léegi nag ñu ñoo ci des ñi nga xam ne ñoo ñu ñooy ndaw ñi war a continuer liggéey boobu ndax li nga xam ne moom la ñuy xeex muy àq ak yelleefu jigéen wax dëgg yàlla dafa di loo xamante ne des lu baree bare liñ ci war a liggéey te moom Dior Fall won nañu yoon bi livre bi nga xam ne nag moom la bind di ci wax fa ay jaar-jaaram ci mbiru liggéeyam fa mu yaroo fa mu juddoo fañ ko fa mu fa mu mu jàngee ak euh, lépp loo xam ne occupé na ko ci ay postes yu am solo muy ci gouvernement bi loolu ci ay yeneen organisation yoo xam ne au niveau international la yëpp xaatim na ko ci biir livre bi waaye boole na ci itam li nga xam ne moom moo xam ne moom la gëm muy xeexal jigéen ba nga xamante ne ah lépp loo xam ne ak xam ak yelleefam la dinañ ci mën a avancer. mu ngook di na Fall Niang moom moo jiite AJS kon mbokk yi foofee la ñuy jaar tàbbi si ñaareelu pàccu xabaar yi. réew la ñu koy tàmbalee ak ca diwaanu fële nga xamante ne bi rek moo di euh, Guinée nga xamante ne bi kii ñuy wax euh, ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara ku ne xam na ne nag dafa rëccoon ci kaso bi niki euh, samedi wante bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xamante ne bi fësal nañu ko moom moomulee jàppaat nañu ko ndànk delloowaat ko ci ginnaaw li nga xamante ne bi rek moo di euh, baro bi muy ci kaso bi procureur général nag bu réew ma dafa daal di sàkk ñu ubbi ab l'enquête ngir bu ko defee ñu xool dëgg-dëgg anna lan moo waral ak itam li sabab mu daal di rëcc ci prison bi li tax itam mu daal di yore ay ngànnaay yoo xamante ne bi rek dañu koy xeexee muy arme de guerre wante itam li waral tey mu bokk ci kuréel gu ñu duppee association de malfaiteurs ak itam complicité wante ba tey ci xibaar bi lee chef d'état-major général des armées bu réew ma moom général de division Ibrahima Sori euh, Bangoura daal nay fësal ne daanaka rek euh, gis nañu ne arrestation bu ni mel jot nañ cee wala sax évasion bu ni mel jot nañ cee téye ñu bëri ñoo xamante ne bii dañoo njort ne ñoom ñooñu lee seen loxo laale na ci kooku kookule ca diwaanu Madagascar foofa itam gis nañu ne ab euh, mbooloo mu takkoo takku bu nekkoon ca place bu ñuy wax euh, place euh, du mais mai ca capitalu réew ma di Antananarivo li ko waral nag moom mooy amal ab ndaje ñaxtu li nga xamante ni bi rek moo di seen mbébét wante loolee ñi nga xamante ni bi rek ñoo di takk deri ñoo ñëw sànni fay grenade lacrymogène tas jotaay ba ba lu toll ci fukk ci ay doomi aadama jëlee fay gaañu gaañu yu méttee métti ñett ña di ay taskatu loolu nag collectif des dix candidats moo gën a amal ab ndaje ci bërëb boobu leen ngir wax ci lu soxal réew mi mbokki loole moo nekkoon xibaaru bitim réew yi dañuy tàbbi ci lu ñeel wàllu tàggat yaram ay waxtu moo des ñu daal di yegg ci combat gu mag gi diggante Modou Lo Ama Baldé gis nañu rek ne banlieue bu Dakar ak itam Parcelles Assainies wàcc laaye mu ngi mel ni tulleeg mal li wante fa nga xamante ni bi rek moo wër fa ñuy war a sëggee bëre muy arène nationale ca banlieue bu Dakar gis nañu ne saa yu làmb amee jafe-jafe yi lu soxal wàllu kaaraange dafay siiteel askan wi lool sonal leen ba tax ñu bari dañuy tëj seeni i buntu kër borom boutique yi itam dañu daal di tëj seen i butiku jaayukaay loolu nag gannaaw ay waxtu yu néew des ci suñu ndaw Mariam Soda Ndiaye àndoon ak Mohamed Sané dem nañu fa taataan kàddu askan wi. fekk arbitre bi suuflewul du la am ñun danoo war a dépasser foofu ci làmb parce que làmb suñ kërteel la waaw danoo war di roy ci bawol bawol yi parce que damay gis tafaatin boo amee combat bawol bawol bawol yi dañuy ñëw def fair play ñëw dinañ bàkku dinañ bëre ñu daan leen ñu ñibbi ñu daan dem ñibbi kon ñun nag Pikine ak Parcelles ñun ñëpp Sénégal la waaw danoo war a dem ci fair play ku am ndam ñu xam ne moo am ndam ku am défaite it ñu encouragé ko pour en cas ëllëg moo li ci kanama moom it mu am ci victoire. di ñaanal Modou Lo jàmm nag yàlla bu ko dara dal Modou Lo na am jàmm ju bëri kese mu ñëw ama jàpp ko defaral ko wàccee ñu ndax ama ñu doon kaa yërëm ko lu ñu ko teg moo meti billaay wallaay lu ñu ko teg daa rëy xool lu ñu ko teg rek mu dëkk loolu kon ñun ama rek la ñuy bëggee billaay yàlla na yàlla may ndam nag ama ndam lu set wicc dinañ ambiance Modou Lo dinañ ko dalal buñ ko dalalee bu ñëwee mu jox ñu roi bi rek après mu dem ci njekk ak teraanga kese <laughs> yàlla nañ yàlla may ndam rek ama yàlla nañ ko yàlla defal ndam lu sedd guy ci kawam billaahi wallaahi loolu dong lañ koy ñaanal non sécurité bi moom jarul sax ñuy ñëw ndax ba rek dañuy ñëw fair play dal jàmm ñëw dalal waa parcelle waaw fair play mooy loolu ñu daal leen mooy loolu gara bon di woo supporters yëpp ci jàmm ko en fait nañ ñëw indaale jàmm bien vrai que euh, bëgg nañ ndam mais ak ni ñëpp niñ mënti ñëwee rek nañ indi yar ak teggin xam ni Modou Lo sénégalais la Ama Baldé sénégalais la niñ mënti ñëwee rek nañ ñëw yar ak teggin sans violence xam nga di wax aussi état mu def le maximum possible ba xam si ni sécurité bi dina doy kenn du ci gaañu. waaw yàlla na ko yàlla may ndam. waaw yàlla dafa ko jàmm yéen mu ngeen xëy sangu sañse xel lu neex ñëw toog lam ji day neex de neex day neex de mu ngok muy kàddu askan wi nekkee ci wetu arène nationale ca banlieue bu Dakar doon addu rek lu jëm ci kaaraange gi wala ñàkkum kaaraange gi nga xamante ni bi rek dañ nañ ko faral di nemee ko saa yu làmb amee ca diwaan ba kon nag askan wi fa nekkee mën nañoo wax ci lu ni mel ndaxte saa su ne dañuy gis ni lu méttee métti la ñu jànkuwanteel ca diwaan boobu boobule kon nag ñuy sàkk ci mbër yi ñu daal di waxtaan ak seen supporter bu ko defee ñu mën a ñëw ci fair play bëre ku daan xam ne Sénégal moom moom ndam ji mbokk kon foofu la ñu jaar buur bi la jotaayu xabaar mu nekkoon fii doon ko li am ci mbégte lool wante itam di jaajëfal Fatima Top mi nekkoon ci réalisation bi Pa Omar Gueye wante itam ki nga xamante ne bi rek moo di Matar Samb ñoo nekkoon ca xarala ga ba tax ngeen mën a jot xibaar yi ni ngeen ko bëggee fu ngeen toog ci seeni kër di ñu bàyyi xel xibaar dañu dikkaat bu 28 ndax jotee ci kàllamay nasaraan jërë ngeen jëf